mbokk maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di leen bala wàq di leen ko baal di ñaan yàlla sunu boroom yàlla bu mu bindal kenn bàkkaar ngir man ginnaaw loolu ma yëkkate ay kàddu mu jëm ci ñi ma bokkal pas-pas ci yoon wi mbokk yi ndax jotul nag ñu def ab taxaw seetlu ci sunu pas-pas ci sunu digganteeg sëriñ bi dama gis kenn ku nekk ci ñun jàppe boppam professeur buy jàngale ak taalibe ba mel na sax sunu sëriñ yi ñu yaakaar te ñi leeri sëriñ bi ñoo leen gën a xam yoon wi bokk yi sunu maam yi day ni ñu ànde woon ak sëriñ Touba mooy ba am ndam ci laa bëggoon ñu del siwaat si te moytundi ko wax ju bari ji sunu maam yi da ñoom kenn ku nekk fa nga féete woon sëriñ bi am ñàkk nga fa doonoon ba lenn luy ruur sëriñ bi du jaare ci yow léegi nag dama gis ñu ñoo xam ne wala boog ñun ñëpp ñu maase di dal ci sunu bopp di weer sunu bopp ba yoon wi sax kenn mënatu cee yëkkati kàddu ndax ñi lay tontu ñëpp ci biir yoon wi lañ bokk te di la jàngal ak taalibe te boo demoon ca daaray taalibe ya mën naa am sax doo leen fa fekk bokk yi ndax tax jotut nag ñu taxaw seetlu yoon wi lu neex waay def ci léegi lu neex waay def ci ba kii nga xam ne moom laa leen di bëgg a digtal muy Omar Diagne li muy wax waxu ko benn yoon waxu ko ñaari yoon waaye goog ñetteel gi maa tey lay doon bala ma ciy sori damay bàyyi ngeen déglu ay kàddoom su ko defee ma dellusiwaat ak yéen ci sama laabire. donc dama ne comprendre leen la moo xew te ngeen bàyyi dof doflu gi ñu ñuy wax dafa leer naa ñu waxantuwuñu te xam nañu baax lu ñuy wax donc man dama ne nag lii nag ab yëpp nag lu tax mu metti ma. je vois benn impuissance euh, ak benn petitesse de l' état man état bi moo métti ndax lii yëpp su amee si dëkk dañoo war a tiit ñun ban dëkk lañu nekk dañoo war a tiit lu tax dëkk bi ñu nekk mu am ay intouchable lu tax trafic yi di am moo xam faux billet la wala foofu wala sax yenn yi du ay faux billet c' de bon cliché du faux billet ko xam la mooy faux billet waxuma ko faux billet sax mais billet vrai la mais billet bi jaarul yoon maanaam fi yu muy jaar c' est des gens yoo xam ne da ngay jege Sénégal c' est une plaque tournante de la mafia lii c' est un fait ci trafic ci droc mais chanvre indien beeg yëpp fan lay jaar fan la gën a fan la gën a takkarnaase dans les zones de non état zone yi xam ne état bi amu fa accès demal au laa de Proxaan un un douanier dafay dàq ji un un trafiquant ko su duggee Proxaan douanier bi amul droit topp ko day robuste chemin dem yoonam un trafiquant dafay jóge ba Guinée dawal camion doo ko biir Touba douanier bi amul droit topp Touba. Touba ak Ziguinchor li nga Ziguinchor ba nga xam ne daf si am ay zones yoo xam ne ñoo jàpp dafa am ay mine wala dafa amul paix wala amul nangam zone yu yëpp zone la yoo xam ne état bëriwu fa état du fa présent bu baax mënu contrôler trafiquants yi foofu du ñu nekk laa wax. mbokk yi ñoo ko déggandoo noonu xanaa nit ku yëkkati ay kàddu jëmee ko ci moom ñuy nattable man ngay wax ak mënu may wax wala waxuma nga dem ba àgg nag tuddal sa bopp awtu wax ne waxuma la xaalisu faux billet. waaye dama lay wax ne ñoom seen xaalis yi ñuy am te léwut nga xam ne fañ koy jëlee léwut boo ko waxee nag jàppal ne màggalu poroxaan gi mu tudd ca la bokk lañ yóbbu poroxaan léwut jàppal ne Touba gi mu tudd université bi ñuy tabax xaalis bi ñu ciy dugal léwut jàppal ne masaalikul jinaan xaalis bi ñu ko tabaxee léwut ndax nee na xaalis ya fay dugg mooy dëkk yi nga xam ne état amu fa kàddu gam fa war a am loolu ay tontu la ba tuumaal nañu nee na xaalis yi ñu fiy dugg yëpp dara baaxu ci mbokk yi kii mooy Omar ana ana ban wàccuwaay wala ban taxawaay wala moom mooy kan ci réew mi wala ñun ñi nga xam ne ñun la sëñ Tuubaa di sàmmloo yoon wi ana ñu ñan ñun ana ñu bokk yi yëmut ci Omar Diagne yaakaar naa ne lii Omar Diagne bu dem ci ku dem ci site internet yi danga fu fekk ay vidéo am te ci maa tey la koy waxe benn ma jàpp ne Omar Diagne moo ñu yab wala ki ko dalal di wax ak moom moo ñu yab wala organe bi mu koy waxee moo yab yoon wi bokk yi yoon wi ñun ñooy ak ñun ñooy ñan ak ana sunu ana sunu àndandoo ana sunu doole ana sunu gëm sëñ tubaa ana sunu delloo njukkal sëñ tubaa ba tax lu neex waaye mu teg ko ci kaw yoon wi te jàmm rek a ciy mujj mbokk yi ma ñëw ci beneen vidéo déglul oustaz Lamine Sall dëkk ca luga kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko dal ko ci kuréel boo xam ne yoonam nekku ci moom xam nga ne buy wax bay wax ne ngóor jigéen yii kat xeex leen xeex kuréel bi nekk ci biir tariixa bi te duñ julli duñ woor moo ko gën a jaadu mbokk yi Lamine Sall mooy kan sunu ñàkk fayda ak sunu nooy ak sunu ñàkk a nekk benn te sëñ Tuubaa benn la woon ñu moo tax kii ñemee wax loolu wallaahi waaye bu ko waxoon ci kanam sunu maam ya dee nañ baa mu dee moom mbokk yi am murit su fekkee ne bakkanam a ko gënal sëriñ tubaa war naa ñàkk sëriñ tubaa ba ni ci biir ñàkk bi dara du ko róor te ñun nag romb nañ ñu ñun ñi doon ñag àgg ci biir ñag bi buñ leen wax dara ndax ñi leen doon ñag ñoo yaafus bokk yi bokk nañ bokkal ñun bokkal réew mi déglu Lamine Sall kàddu yi mu wax bala ñu ne dañ koo tuumaal. ànd ak nag sëñ Maodo góor jigéen a tane ku bàyyi julli nag. fuuf <laughs> waaw wax dëgg yàlla. góor ji mais lu tax lu tax maa ngi dégg ñu naan am dégg naa ku naan waaw bu ngeen fexee ba. ba ba lii sax ci senegal bu ëllëgee lu ngeen di laaj sëñ Touba sëñ Touba bu leen laaja lu ngeen koy laay ñun sëñ sëñ Touba liñ koy préparé laayil kay te xamuñu ni ko koy laajee lim lim wax ci tasawudu sixaar mhm. wax ko ci euh, majmuu nuurayni mhm. nee na kudul julli mhm. boo takkee doomam dog nga kóllër gi doxoon sa digganteeg sa boroom sëñ ci ñu ngi ci Majmahun Nurayni mhm. boo doon ci passe numéro 32 nee na kurul julli boo jàkkaarloog moom belli sa kanam te ñaggal njëggaloo sa kanam belli sa kanam maanaam nga bëgg ya yàkku màbbal kaaba gi yéen a yem sëñ Tuubaa nee na euh, kurul julli nga bokk moom ñam yàlla day wowal sa xol parce que am na ay poson buy génn ci weyi poson boobu boo ko lekkaalee yàlla day wowal sa xol kon ñu sëñ Tuubaa li ñu ko amee lay ka ëllëg yomal xiyaam tey mooy mënuñu lu tax ngeen doon seetaan am mbooloo moo xam ne nañ ñun jul du ñu julli mbokk yi ñoo jot a kàddu yi Lamine Sall yooyu pourtant kàddoom yu bon yu ñaaw yii day yëkkati na yeneen kàddu yoo xam ne ñoo ñoom ñoo bokk ci réew mi te buñ doon seet man mën nañ leen a fukki ci ci réew mi wala ba juróom ci leen ci waaye ba mu yëkkatee ay kàddoom ñoom dañoo jóg taxaw saafaraal ko seen bopp ba sax mujj na njiitul réew mi yëkkati ci ay kàddoom te ne mosuma dégg lu ñuy wax yoon wi loo xam ne kenn ku ne ci état yëkkati nga ci sa kàddu bokk yi ndax ñun buñ ko wax ne ku am kudd doo lakk waaye nag ku amul kuddu faaw nga ruus sa loxo nag ci biir ñam wi lu mu tàng-tàng nga xam ne loolay sa sens mbokk yi lii nañ ci taxaw dafa war a saafaraw ndax sëñ tubaakat lebaluñu lii kon liñ ko faye ak ngoreed rek la mën a doon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.